bismillahirrahmanirrahim mbokk yi ñu ñëw ci waxtaan ci importance bi nga xam ne gént am na ko ci dund doomu aadama yonent bi salaa salaam daan def bu jullee suba ba noppi day laaj yi ne kan moo ci am lu mu gént na ko wax ma firil ko ko ba bi yonent bi salaa salaam jóge fee sax yonent bi dana yàlla sun borom ahma yonent bi fi jóge dana ko yonent du ñëwaat du ma wat ab yonent waaye nag dana di wal yenn gént yi nga xamante ne xibaar lay doon ci yiw buy ñëw ci doomu aadama wala musiba bu ñëw ci doomu aadama ci yiw buy ñëw ci société yi wala ci yiw eh, musiba bu ñëw ci société yi moo tax léeg mbass mbas war a wàcc ci am réew yàlla wan ko benn nitu yàlla ci gént wala mbas war a wàcc ci ab famille wan ko benn nitu yàlla ci gént wala mu wan ko sax benn jaamam bu xorom sell ci gént doomu aadama da nga ñëw yàlla waxul kenn dara man loola caaxaan mu ko weesu yàlla kay mi ngi wax nit ñi nag waaw da nga naan yàlla waxuma dara raman waaye sun borom mi ngi wax nit ñi am na ñoo xamante ne seen mbokk seen famille bala caa nit a faatu sa léeg-léeg dañ xam ne fam bi dana am ko ci faatu léegi léeg yàlla suñu borom dana jël kenn war koo teg nattu yàlla suñu borom war la nattu boobee yow ci sa jëmmi bopp rek bépp problème bu la dal yàlla dana la ko wan ci gént wanaat la ko ci gént wanaat la ko ci gént ngir nga fagaru sàkk sarax wala nga ut muslaay wala nga def lu ko fànq ba loolee du agsi ci yow léegi nag doomu aadama nag mooy sàggane gént yooyee ñu naan la nelaw yu neex la dangaa regreer ba musiba mën a këpp sa kaw nga ne pourtant man géntoon naa ko ah géntoon naa kon géntu lu mat a bàyyi xel la mboolem koo xamante ne nag nitu biddiw nga su ma ne nitu biddiw nga mooy ku nar a tekki dara ëllëg nga sunu borom subhanahu wa taala ci ba ngay ndaw dana am ay gént yum lay wan yu wane ne ay mandargay nit ku nara a yëkkatiku nga bokk na ci ma daan misaal lu mel ne gént ay biddiw wala gént jant wala gént di naaw wala sax jigéen gi ëmb gént gis jant wala mu gis weer wala nga gént di dox ci ndox wala xeet yu demee ne ko noonu nga wala di gént di dox ci ay jardin yoo xamante ne maanaam ay tool la yu naat am ay fruits xeet yu demee ne ko noonu wala gént dem ba ci biir ndox di gas or wala gént dem ba ci biir ndox nekk fa di fa promenade nii te dara jotu la fa gént di traverser ndox ci bateau ci jàmm ak salaam xeet yooyu yëpp ay mbir la moo tax yontu yàlla yusufa alayhi salaam bi mu géntee génte ba ne ko yaa abati inni raaytu ahada asra kawkaban wa samsa wal qamara raaytuhum li saajidina bi mu ko nettalee papam dane ko tuuke waay bu mu ko déggati de googu gént du gént gu ñu nettali ndax du gént loo war a doon ëllëg la yàlla di la ko wan boo sobee nag ba nettali ko nag nee ne loolee dana indi fiiraange sa diggante ak sa doomu bàyyi moo tax yow mi nga xamante ne yaa ngi am ay gént yooyu gént del bàyyi sa gént yooyu bul ko caaxaane am na ñoo xam ne lépp luy xew ci ñoom wala ci seen njaboot wala ci seen famille ñi leen jege ci wàllu deret yàlla dana la wan lu bari ci wàllu gént boo yeewoon ak jullit ñaar rakka nga ñaan yàlla gént gi li ci yiw yàlla ma ko yàlla indil la tey musiba yàlla ma ko yàlla dàqal ndax man ngaa gént gént gi di yiw ba noppi gént ga yiw woowa am musiba bu ci laxasu kon nag del sàkk sarax te nga ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala musiba ba ca nekk bu fànqal la ko ñi nga dañoo nekk ci mbir di ko toppatoo mbir ma bloqué wu léegi léeg suñu borom dañ la wan ay gént gént yooyu nag mooy wane ne lii ngay toppatoo ndax yiw la ci yow wala di yiw ci yow moo xam yoonu tukki la moo xam da ngay dugg ci ab sëy moo xam da ngaa war a investir sa wàllu alal xeet yu demee ne ko noonu yëpp del bàyyi xel ci gént yi ngay gént ba yi ngay tawat sax léeg-léeg war laa dal tawat ju bon lool suñu borom wan la ci gént signe boo xam ne lii feebar lay wane am na façon gént yoo xam ne boo ko génti day tegtal ne feebar boo xam ne bu la dalee ci lal ci ngay faatoo léegi nag suñu borom bu la ko wanee ba noppi nag dana la wan ay biir yoo xamante nii dana wane ndax yonent bi saa salaam Seydina Omar nettali na ko gént mu firi ko ko yeneen saxaaba nettali na ko gént mu firi ko ndax am na ko nettali na ko damaa kaasu damaa gént legetu ak legetu soow tege man yaa yonent bi saa salaam naan na ci legetu soow ga ba mu paree mu jox ci Seydina Omar mu ne ko hada yadullu ala al ilmi kon day wane na Omar mooy nekk fóorib xeet wi loolu lay tegtal ne xam-xam la moo tax gént dinaa naan soow lu ama ama ama am solo la lu mel ne xeetu gént ay xeetu banaana banaana gént gu baax la bu fekkente ne nag banaana bu saxewut la wala gannaaw banaana bu nëbut la banaana lu baax la gént garabu limon ci sa digg kër wala xeetu euh, limon yu vert yooyu wala yu na ko noonu mu sax sa kër wala mu tasaaroo fa loolu xeetu yiw la moo xeetu orange yu demee naka noonu waaye rek benn bu ci nekk rek mën naa doon gént gi am yiw ba noppi am ay dance ca biir moo tax lépp loo géntati dee ko bàyyi xel boo ko mënee laaj boroom xam-xam boo xamante ni euh, xam-xamam jëm na ci firi gént mu firil la ko te yem ca fa ko ci suñu borom subhaanahu wa taala yemale waaye am na ñoo xam ne dañ lay gént firil gént ba noppi gën laa ràngati te nit ñi tamit am na ñoo xam ne daanaka li ñu gént dafa bari lool moo tax deel bàyyi xel yow mi nga xamante ne ndaw nga deel bàyyi xel gént yi nga doon gént bi nga commencé à l'âge de quinze ans ba vingt-sept ans bépp gént boo fi gént boo ko manee noté noté ko nga xam gént gi lan la signifie ndax mën ngaa dem ba danga ko dund ci sa wàllu mbiru àddina yow mi jigéen tamit boo nekkee ci biir néegu sëy am na signe yoo xam ne boo ko tàmbalee gént sa sa borom wala nga tàmbale koo gént yow ci sa say biir nelaw bàyyil xel na mën nga dem ba sa sëy mën naa yëngu sax wala sa tas bën na ñoo xam ne seen tas na wala seen sëy yëngutu na fekk waroon nañ leen ko ci gént mais dañoo nit li sa gént ko kon gént jërul caaxaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu xëyee day woon leen kaay leen saxaaba yi ngeen wax ma kenn ku ne na gént kii wax ko géntam mu ne ko gént gi lii lay firi kii wax ko géntam kii ne ko gént gi lay ba ci nodd ko daganal fekk ci gént dong la ko nit jël gisee ko yonent bi saa salaam yonent bi ko ah baax a baax doomu aadama bi li ñëw ci moom yàlla ku bëgg doomu aadama am na ñoo xam ne yàlla dina defal kasfu kasfu mooy mën nañuy gis lu sori ci bëti nit ñi te jege ci ñoom lool am ñoo xam yàlla dina defal lu ñu tuddee alfirasa alfirasa mooy mën nañ gis nit ki tey lañ ko gis tay tay tey xam ban genre nit la ak lan moo nekk ci xolam sax la muy xalaat yàlla suñu borom mën na koo may ndax yunus bi saa salaam moo tax mu ne ittaqu na ngeen ragal firasat al mumini firasam nit ki ndax gisu xol lay gis fa innahu yanzuru bi nurillah léegi da nga gis nit rek jàkkaarloo moom rek nga xam kii ban genre nit la nga mën a wax ci moom loo xamante kenn du ko dindi te fekk loolu firasa moo koy maye firasa nag suñu borom moo koy may ku ko neex léegi la julli dana ko am léegi-léegi yéefar sax dana ko am moom dëgg ñooyam jullit dana ko wax yéefar dana ko wax moo tax Seydina Umar radiyallaahu anhu boo ne iqbalul xaqa min kulli man takallama bihi wa in kaana kaafiran dëgg fu ngeen ko déggee na ngeen ko jël doonte ab yéefar ko wax ñu ne ko al kaafir kay fa yàqu la yéefar naka lay waxee dëgg mu ne inna lil xaqi la nuur asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu